vraiment dama mënoon na durer trois heures quatre heures sincèrement woon sax mhm. mu ko gàmmu gi non non non foog ñu boole ko ci foog ñu boole ko ci boole waaye moom lu mu waroon jël mhm. dafa lii ñaari waxtu yi dafa ci tuuti waaye amul solo mhm. dañ ci ñambaase rek li ci am solo comme que ubbi nañu tomb bi waaw bi balaa ñu ci demaat dama bëgg benn kàddu rek boo xam ne bi léegi du sore ak euh, gàmmu gi waaw xam nga li Ibrahima wax lu am solo la man gis naa ñëpp jàngat nañ ci woo ngeen ñëpp xanaa ustaas yi ak imaam yi seen rôle mooy ñaan la. waaw loolu Sénégal dafa war a weesu foofu. Mhm, dëgg ustaas yi lu ñu jàngi woon ak sëriñ si lu ñuy yor bu ñu ñëwee nañ ko tari ci événement yi. Mhm. loolu yokkute la ci réew. Mhm. rawatina événement yu mag yoo voilà. dañu war a andi seen njàng la lan ngeen jàng. lan ngeen gis lan ngeen yëg. c'est la première fois man may àddu ci mbir te ni nga moo tax ñu àddu ci ñeneen ñi dañ leen ustaas ñaanal walla waxal li ci yàlla wax. <laughs> Euh, yii dafa am solo bépp événement boo xam ne bu ñëwee dafay bouleverser nation. Mhm. waaw dafay toucher communauté bi. Mhm. borom xel yëpp ñoo ci war a jàng. boroom xol yëpp ñoo ci war a jàng ñu xam yëpp ñoo ci war a wax. Mhm. et donc benn kàddu l'islam dafay ne bépp xeetu moyen boo mën a jël vérifier ko ba mu baax. boo paree nga confier sa bopp yàlla. sabablu. sabablu. waaye wàkkirlu lu ci yàlla. li ma bëgg wax léegi comme ko wax nañ tiitan yi nga histoire bi dafa am lu mu làmboon ci xeetu mbéwte doomu aadama fii nag sur le plan spirituel lay wax bato bi buñ ko defaree dañ ko tiitre woon bato boo xam ne ndogalu yàlla mënalu ko dara moo nekk Titanic la wax maanaam ah mooy bato boo xam ne ndogalu yàlla mënalu ko dara hmm. ñu ko defaru loolu noonu wax comme nu ñu defee yeneen mbir yoo xam ne yàlla moo ubbi seen xel. Hmm. ci ay xeetu fise ñu tuddee ko challenge. ok d'accord di def yow yàlla sunu borom. Hmm. dama bëgg wax ne mbewte doomu aadama dañ ko war a xoolaat yi tamit. bañ a yii bu amee toujours. Hmm. boo xoolee beneen angle bi da ngay xam ne yàlla mooy woon doomu aadama yi seen limites. bien sûr ak seen ñàkk man ak seen ñàkk doole. événement yoo xam ne kenn mënu ko maîtriser. ci fi may wax ak yow ci semaine bi rek àdduna bi yëpp ñoo ngi doon dund ay bouleversement bien yu naturel yoo xam ne kenn mënu ko maîtriser Maroc Libye ak euh, ay mbënd ak ay làkk yi amee fale mm-hmm. temps yi agence américaine boo xam ne moom la mooy toppatoo mbirum jaww ji ak yooyu mooy NASA bi ngeen xam am na ngelaw yoo xam ne observé nañ ko yu tar mm-hmm. nee nañ ñoom xamuñu ngelaw yi fan la ñu jëm te muy tekki yàlla sunu borom a ngi fi moo fi nekk kon il faut toujours mm-hmm. côté boobu itamit ñu bàyyi ci xel.